Alla Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi FM. waaw maa ngi leen di fay. ngay directeur exécutif Unacois Yessal euh, ñuy màggal le 8 mai bi euh, journée bi nga xam ne moom la ñu jagleel commerce équitable nga jiite association commerçant importateur ak exportateur te jii boo ci wàllum xayma nan nga xayma projet boobule di commerce équitable. xam nga commerce équitable moom décision bi mi ngi jóge ci Nations Unies jaar ci OMC. Hmm. mu concerné pays yi ci yi ci nekk membre yëpp kon daanaka daanaka àdduna bi kenn desul. Hmm. mooy mooy équitable. xam nga jëndanteeg mu tegu ci yoon. Mm-hmm. moo xam dafa am ay normes yu ñuy respecté. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, muy produit bi ngay jaay. fa mu jógee fi nga koy yóbbu ba ñee jot ci ni ñu koy jëfandikoo na nekk produit bu baax mm-hmm. rew moo dem nga respecté législation yi nga xam ne moo fa dox ci wàllu commerce loolu je crois que euh, mooy commerce équitable te di jaay lu njëriñ di jaay lu respecté norme doo jaay lu périmé doo jaay luy gaañ nit doo jaay posen donc loolu euh, mooy mooy commerce te ku nekk gis ci sa bopp ki jënd ki jaay ak ki transfert loolu mooy commerce équitable mm-hmm. équitable te xam nga transaction internationale commerciale réew yëpp looy concerné mais loi yi ak règlement yi moom ngay respecté loolu OMC moo ko tëral. Mhm. ndax boobule partena euh, maanaam jaar na ci partenariat euh, bi nga xam ne ci waxtaan la tënku waaye ci lépp leer. transparence ah, mais bien sûr parce que commerce bu ñu ko waxee diggante kuy jënd kuy jaay la mais day ay contrat yu dox si diggante en mm. contrat yooyu nag day tëral norme yi nga xam ne ci la transaction yi demee mais aussi fa muy fi muy jaar fi muy egsi fi koy consommer. Mm-hmm. loolu yëpp ay loi ay règlement la xam ne nii jógewul ci asamaan si jógewul ci suuf mais OMC moo ko tëral réew yu mu yëpp ànd ci. Mm-hmm. ma wax ko sànq ba ma waxee wàllum évaluation euh, tey jii ndax yéen gis ngeen seen bopp maanaam diggante Afrique ak Afrique euh, lii di jënd ak njaay mi euh, mu yem ak it diggante Afrique ak Europe. mais d'abord diggante Afrique ak Afrique ni ñu war a jaayante jënd seen biir dafa néew doole tuuti boo ko comparé ak diggante Afrique ay yeneen réew. Hmm. da nga gis ay réew yoo xam ne ñoo bokkandoo frontière waaye d'une manière informelle la commerce ak transaction commerciale dox seen diggante. Hmm. léegi nag euh, te diggante réew mooma wala ñaar réew yi ñu concerné ku ci nekk yaa ngi jëflante ak bitim réew ci yeneen continent. d'ailleurs dem ba remarqué loolu sax moo tax chef de détail dem ba teg ZLECAf ZLECAf mooy marché. Euh, africain boo xam ne nii concerne cent cinquante en fait concerne cinquante deux pays africains mm. mais surtout euh, euh, war na egg milliard ak deux cent millions ci consommateur ëllëg mm. te loolu commencé na depuis janvier bi donte juillet bële wa passé la waroon tàmbale mais mbas mi moo tax ñu toxal ko ba début janvier la tàmbale mm. kon daal ZLECAf am na lu bëri li nga xam ne yokk na ko wala sax dina ko apporter ci commerce équitable bi am na lu bëri lu mu ci war a yokku diggante pays africain yi te foog naa loolu mooy objectif principal bi te puis chef d'état africain yi aussi euh, négociation yi yàgg lañ lañ dox doxale seen biir ba tëral ko mais surtout euh, du du du du du luy jamp tey tey tey tey ndax tàmbali na janvier mais fii quinze ans mm. donc deux mille trente cinq daanaka ci lay jot vitesse de croisière te boobu ñu ci àggee daanaka barrière douanière yi frontière douane yëpp dañ koy effacé waaye nag Euh, nañ ci sant yàlla parce que am darajey président de la république moo tax sax ba madame le ministre du commerce Assome Diatta moom moo diriger ministres yi nga xam ne yëpp ñu ngi bokk ci Sénégal donc tous les pays africains te loolu day wane ne Sénégal dafa incontournable eh, ci wàllu commerce ndax place bi mu am ci wàllu ci situation géographique ci Afrique nekk Océan Atlantique soriwul Amérique soriwul Europe mais surtout am stabilité sociale ak politique xam naa loolu moo tax ñu a jot ci loolu. Mhm. ci wàllum commerce googule sax tey suñu euh, soblem yi bañ ñuy waxtaan euh, suñu waxtaan gu mujj ak waa ministère du commerce euh, maanaam commerce intérieur xamal nañu ne suñu soble gi ñu ngi koy yóbbu bitim réew di ko jaay tey jii nga doon importateur exportateur lan nga ñu mën a wax ci mbir moom la. loolu xibaar bu neex la loolu mooy wane ne kon producteurs yi ñu ngi produire lu bari te am na qualité dañ koy exporté mais nag euh, nañ xam ne aussi dañuy importer euh, soble yi jógee Hollande ak euh, Israël ak Italie ak ak Russie yenn pays yi nekk espace Schengen ñi ay soble mu ngi fay jógee waaye nag ci ndigalu ARM donc ministère du commerce dañ naan production locale su génnee dañu koy arrêté dañu arrêté importation yi ba ba loolu jar ba jeex ñu doog ubbiwaat ubbiwaat frontières yi importation yi doog ñëw mm-hmm. te baax aussi mi ngi jóge bitim réew mais suñu béykat yi depuis un certain temps ñu ngi béy lu baax loo xam ne nii non seulement quantité bi doy na euh, bari na macha allah mais aussi qualité bi baax na ta lool moo tax jamono yi ñuy jàmbat ne béy nañ te jaay ñu waaye bi ñu arrêté importation yi nit ñi dañ ci profité jënd produit rawatina koor gi ñu ne ak tabaski bi ñu jëm yaa ko souligné muy qualité ak li nga xam ne moom mooy concurrence bi parce que am na yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom it seen production euh, baax na loolu ndax li ni mel jàpp nga ne Sénégal euh, tey jii pare na ci euh, ci wàllum conservation ak it qualité googu sax ñuy wax. d'abord li ñuy doxal ci njënd mi njaay mi ci mbay mi mu ngi jóge ci PSE mais surtout ci PRACAS muy programme boo xam ne nii dafa laal lépp lu jëm ci production maraîchère agriculture et cetera mm. boobu ci ci ci ci gàttal ci ci question boobu. Mhm. mooy d'abord qualité bi ñuy produire mën na concurrence li jóge bitim réew waaye accompagnement la laaj état bi dafa di subventionné. parce que ñiy bay fa ñu bayee dañuy leb xaalis mais dana am ay main d'œuvre bu ñu war a fay mais surtout ay ni ñu koy waxee euh, ni ñu koy waxee intrant intrant yu ci nekk loolu dafay xaw a cher. Mm-hmm. donc obligation la ci état bi mu accompagner ci wàllu subvention mais des na beneen aspect bu am important boo xam ñun liggéey nañ ci ak ARM en tout cas sori na mooy mooy lan diggante bi nga produire ba bi ñuy consommer. danañu perte lu bëri lu tolloo trente cinq ba quarante pour cent mu mu mu mu naax saay muy lu yàqu muy lu luy nëpp li ko waral mooy amuñu espace yu doy ngir accueillir pomme de terre yi maanaam euh, euh, oignon muy am aire de stockage nga xam day gën a Eh, bu bu ko bu ko ngelaw di ëpp day gën a dëgër. Mm-hmm. a gën bu gënee oyof ci la gën baax. Mm-hmm. bu diisee mooy mais dafa war a oyof mais bu dee pomme de terre moom dafa war a nekk ci espace frigorifique yoo xam nii du congelé mais degré lay am bu yàgg boo xam ne nii mën na fa def six mois ba un sax te du yàqu léegi loolu nag dañ ko manqué donte jam am na bu fi ubbi mais ba baax léegi fonctionné gul xamul lu ko waral loolu ñu ngi question bi mais am na structure bu mel ne. Sénégal boo Euh, ba heure bu ñu ko bëggee jaay jaay ko dara du ci yàqute loolu suñu baykat yi di maraîcher classe yi ñoo ñu loolu. Mhm. da ngeen di mhm. jënd euh, di andi euh, di jëlee fii di di yóbbu tey jii ndax yéen ñi sax état assisté na leen. bon assistance bi moom pour le moment théorie la dañ koy dégg waaye nam ñu waroon a jàppalee bu ñu exemple ci yeneen réew yi ni ñu jàppalee seen i homme d'affaires man de gisaguma ko wala boo xam ne te yëguma ko parce que am na lu ñu digoon ci li ñuy wax PREN programme de relance de na ko na la ca la ca la ca keroog bi ñu koy lancé jam ñaajo sax invité woon nañu jël fa kàddu waaye boobaag léegi dégg rek am te léegi amut ah, loolu bu amoon dana suqali koom-koom bi jàppale importateur exportateur ni mu war a jàppale béykat yi waaye dégg naa jàppale nañ transporteurs yi dégg naa jàppale nañ artistes yi dégg naa jàppale nañ sax jakartamaan yi waaye ñi nga xam ne ay importateur di exportateur di distribution gisuguma fi ñu leen jàppale te loolu mënoon nañ ko def sax jaare ko ci banque yi waaye boobaa léegi ñi ngi déglu leen seetaan mhm. euh, kon daal mbas mi bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni dafa gën a euh, néewal doole euh, ñii di commerçant yi. dafa dafa garaawoon laal économie tudde ko PREM programme de relance de l'économie nationale ak mille milliards mm-hmm. mille milliards yoo xam ne li ma ci yëg affaire courant ba ak dund bi de moom yëg naa ci waaye jàppale guñ jàppale homme d'affaires yi egseeguñ fii ci Unacois Yeesal mm-hmm. ñu wax ci soble mi ak euh, pomme de terre bi ñu waxaat ci ndax tey euh, gis nañ ne dafa am surproduction maanaam nit ñi dañoo béyandoo soble gi ñorandoo comme niñ koy waxee te li euh, am na ay conséquence ci marché bi euh, tey état di wax saa su nekk ne dañoo bëgg ñu dundal suñu bopp maanaam ñun Sénégal ñu lekk li nga xam ne fii lañ koy béyee tey ndax jàpp nga ne tamit wala gis nga ci ne état gannaaw wax ci mu ngi teg ay jéego ngir li ni mu am suivi. ah pour dire la vérité depuis un certain temps. Euh, li ñu béy ci réew mi yokk na autant ceeb légumes yi pomme de terre oignon ak mangue gi mi ngi mi ngi mi ngi bari ba ñu ngi exporté te bala ngay exporté day fekk sa consommation locale nga as assuré ko te loolu foog naa ne euh, ngir ngir def loolu ministre du commerce naroon na lancé li ñuy wax euh, naroon na lancé li ñuy wax mois du consommer local ñun bokk nañ ci travaux yi boobaak léegi mais xëy na mbas mi ak surtout deuxième vague bi moo tax ba ñu toxal ko waaye foog naa ba léegi mi ngi ci mi ngi ci agenda ministre bi bi en place ñu ngi satisfaire euh, nit ñi te loolu bu amee dañu war a renforcer consommation locale te consommation locale bu nemee mele ni war a mel te dañu wàññi importation bi dañ ko du a jeex mais dañ koy wàññi toll su amee moom la ñuy wax rétablissement de la balance commerciale te loolu mooy bàyyi xaalis ci réew mi ndax boo jëndee xaalis boo jëndee produit bu jógee bitim réew rek yaa ngi dimbali ay baykat yu nekk bitim réew alors que sa biir réew mën nañ ko fi bay dama xalaat sax ne affaire blé bii ñuy wax sax war nañu yéem a xool ndax mën nañ ko bay fii ngir ñuy ndax ci farine bari na trop par at pour mburu mm-hmm. yaa ngi ko wax euh, ñoo ngi yokk li ñuy bay waaye nag yokk gi dafa mel ni dafa am euh, euh, conséquence parce que tey soble gi par exemple buñ ko jëlee li mu bëri ci marché bi euh, wala li mu bëri li ko béykat yi euh, béy mu bëri moo taxit il a fallu ñu suspendre lii di approvisionnement bi su ko defee li nekk ci marché bi mën a dem euh, wax nga tamit leneen muy li nga xam ne voilà donc. loolu non pas suspendre pas pas suspendre approvisionnement suspendre importation yi parce que approvisionnement yi su fekkee ne ñi nekk ci biir réew mën ko assurer que dañu naan tant mieux interprofession bi amoon na benn moment. dafa suspendre durée une semaine li nga xam ne mooy approvisionnement bi su ko defee stock yi nekk ci marché yi mën na écoulé wu. waaw loolu xam lu ko waral. dafa am dugg ci marché pare am lu nekk ca tool yi egsegul ci marché yi. comprendre li ma wax baax loolu su amee aussi production bu bëree njëg day wax ci te loolu dafa yenu maana parce que lu ñuy lu ñu mën a bay aussi consommateur final moom moo moom la ñu war a satisfaire ndax ñu ñëpp ay consommateur lañ mais kii bay na jaay kilo am ci dara waaye pro euh, surproduction kay su amee njëg gi bu wàccee mais consommateur yi euh, ki ki ki ki produiroon dana ci am dara ndax dana ci dund. Mm-hmm. Ah, ndax dana jaay quantité bu mais consommateur final bi aussi mooy sénégalais bi. Mm-hmm. kooku aussi bu ñu ko satisfaire day tax ñuy bay day tax li ñuy bay bari ñuy consommer li ñuy bay kon dana wàññi importation bi loolu mooy li wax sànq. d'accord ñu jeexaleeg euh, waajal korité jamono ji daan nañ dégg ñi di wax ni soble boo mayul dina manqué pomme de terre boo mayul dina manqué ndax atum ren euh, mën nañoo xaarandi li ni mel. li ma mën a wax daal mooy d'abord nañ sant yàlla parce que koor gi yëpp yokk yi ndaan am ci at yi weesu amul. Mm-hmm. te ko xool xam ne marché bi am na stabilité. waaye nag consommateur dañuy jaawale souvent denrée de première nécessité ak produit de luxe. ndax produit luxe moom état mënul contrôler yooyu mënul contrôler yooyu prix mais bu dee denrée de première nécessité prix yooyu dañ ko homologué loolu kenn suñu la jaay la neexee wala bu tension di am tension bi lu tuut lay doon te du yàgg. Mm-hmm. loolu moom bu ko marché sénégalais bi am na stabilité depuis un certain temps ñaan mu continuer ba ñu wari. Mm-hmm. alors léegi nag ñun defoon nañu appel bi koor gi wax suñu membre yëpp parce que ñun suñu membre la ñu war a mm-hmm. a ñaanoon marge bénéficiaire yi ngir koor gi ba koor gi weer si la foo sax ñu dag ko ci fukki weer ak benn yi des defal nañu ko en tout cas fii daal ba fi ñu war a gisuma lu wane ne njëg dana yokk mais kaaw ginaar mën am parce que Euh, parce que jamono yële ñaari mbir dafa attaqué filière aviculture. Mhm. mooy d' mbas mi la na yi produit yi naan importé dafa coût yi dafa yokk mais surtout grippe aviaire bi ñu doon wax laal na leen donte ñun bu dee wàllu aviculture aviculteur moom producteur la mais ñun commerçant yi ay redistributeur la ñu donc du ma ci sori ñoom ñoo gën a xam technique production yi. Mhm. kon daal ci amul. ci euh, <laughs> soble bi. tiitaange bi am mën naa am ci ginaar mais yeneen produit yi moom du du jarul jaruñu kenn tiit lépp daal euh, bu tension di am tension bi du métti. Mhm. Alla Dieng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf voilà directeur exécutif Unacois Yessal merci. jërëjëf ñu merci.